ñaar téeméeri ak juróom fukk la dund naaxoo dund téeméeri at ak ñeent fukk juróom ñett saaruux maami ibrahima dund ñaar téeméeri at ak fanweer bun raaxu doomi raaxu mu ngi dund mu ngi dund ñaar téeméeri at ak juróom ñeent bun faaleex doomu faaleex mu ngi dund ñeenti téeméeri at ak eh, juróom ñeent bun abir doomu abir kooku mu ngi dund ñeenti téeméeri juróom benn fukk ak ñeent mm-hmm. bun saarex doomu saarex mu ngi dund mm-hmm. ñeenti téeméeri at ak fanweer ak ñett mm-hmm. bun arfaxshat doomu arfaxshat mu ngi dund ñeenti téeméeri at ak fanweer ak juróom ñett bun saam doomi saam mu ngi dund juróom benn téeméeri at bun nuux doomi nuux alayhi salaam nuux nag waxoon na yaatam ci dars yi ci gannaaw su ko defee nga gis na xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam seen dund gudd ñi gën a gàtt fan boo xoolee daanañu am téeméeri ak lu teg mhm. ñii ñaar téeméer ñeenti téeméer ba juróom benn téeméer ba junne at mhm. waaye ñun téeméeri at dund dund bu gudd la mhm. ba mooy mat sax nga màggat ba doo mënati dara kon war nañoo góorgóor haada lii nassu ahlil kitaab yi mooy teg si kitaab fii kitaab yim seen téere ahlul kitaab nii lañ lii may maam Ibrahima seen téere mu ne waqat amaltu def naa la amaarim seen dund تحت اسماء تشرون سين تور كومو بيند ريك بي هندي سي لانغ هندي لاكو بيند ليك نا ترادير نكو سي عرب كوم تودو سي مامي ريك انا وا نياتا لا دون كما ذكروا كوم نكو تودي مي مودر سي اي ليم كوم نيو وخي فاني يان دون وقدمنا جيتلنا الكلام على عمر نوح تدن نوح عليه السلام جم فاحنا مدو يعني عادتي جبام كوم تجر نكو بامات نعم. وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمه ابراهيم الخليل ci ba muy tarjuma di leeral kan mooy Ibrahima may xaritu yàlla mm-hmm. min taarixi ci taarixu ibnu Asakir mm-hmm. an Isaaq bun Bishr al-Kahili mm-hmm. mu jëlee si Isaaq doomu Bishr al-Kahili saaxibul kitaabul mubtada mooy borom téere boobu di mubtada nettali na ne anna ismu isma ummi Ibrahima naka turu yaay Ibrahima mooy umaylatu yaay Ibrahima umaylatu la tuddoon <coughs> ثم أورد topp mu rotal anu ci moom fii xabari wilaadatiha ci xibaaru juddoom maanaam juróom la woon ñëw Ibrahima xikaayatan nettali tawilatan bu gudd ni mu juddoo nett na ci mbir wa qaala woon alkalbi ne ismuha turu yaay Ibrahima du umaylatu waaye nuunaa la dégg nga nuunaa buntu bintu karan baa bun kuusaa noonu la tudd ñu ne yaa Ibrahima umaylatu la ñu ne dee nuunaa la bintu doomi karan ba doomi kuusa min bani arfaxshat bokk ci doomi arfaxshat bun saam doomu saam bun noo lay wax ne la yaa ibrahima tudd war a waa nett na min xeyri wajin lu benn aram an ikrima jëlee ci ikrimatu andoona moom xaala wax na ne kaana nekkoon ibrahima ibrahima ali yàlla nekk si yukk naa ñu di ko dàkkantale abaa di faani gani borom gani ndax Ibrahima ku tabe la woon moom boo amaan gan rek balaa wax dara rek mu dina rey gàtt teral ko waaw wajaa bi ijlin waaw loolu jàngoo ci alxuraan gan yi ñëw rek seet si ko moom ay malaaka lañ moom dem na tër ab yëkk moom mm-hmm. toggal leen moom baax mu taaje leen malaaka du lekk gars yi lekkuñ affaire bi jaaxal ko nag lu tax mu teral gënam yi gënam yi lekkuñ ah ñëppay jaaxle de affaire bi triste mu jaaxal ko ñu ne ko bul ragal laa taxam ñun ay yonentu yàlla lañ yu yàlla yónni ci ay malaaka lañ dégg xaalo ñu ne wala maa kaana ba mu nekkee umru taarix dundu taarix taarix mooy bàyyi Ibrahima xamsan wa sabina sanatan juróom ñaar fukki at ak juróom hmm. bàyyam ba mu amee soixante quinze ans hmm. wulida ci lañ jurloo ñeen ko Ibrahima Ibrahima ay ñeel nekk mu asalaamu jàmm kon Ibrahima mu ngi juddu ba bàyyam amee soixante quinze ans Ibrahima jur yonent yàlla lóot haaraan ak Ibrahima ñoo bokk bàyyi haaraan jur yonent yàlla lóot kon Ibrahima bàyyam di ndaw la bàyyi te xam na daal wa wulida ñu jur li haaraan ñeen haaraan luut alayhi salaam ñoom ñaar ñëpp yàlla def nañ yonantu nag <coughs> bàyyi ju ndaw ja ak doom ja ñëpp yàlla def nañ yonantu <coughs> waaye ndawum nekk na fa ñoom na ibrahima na ibrahima alayhi salaam boobu <coughs> mu alaw mooy ku digg doomu ci doomi bàyyam mm-hmm. ibrahima doon woon ki mag mm-hmm. doon woon ki gën doon xale ci mm-hmm. digg bi la nekkoon dégg kon Ibrahima suñu diggu doomu ci doomi baayam yi la bokk. wa anna Haaraan wax nañ ne Haaraan maata dee na fi xayaati abiy ci dundu baayam. Mhm. Haaraan mi jur yonent yàlla Luut wax nañ ne ci dundu baayam la génn àdduna. fi ardi ci suufam allati ci nga xam ne wul da jur nañ ko fiyaa ci moom. Mhm. nga ne ko ban suuf la mu ne wéy moom ardul kaldaan yii na. Mhm. mooy suufu waa kaldaan. yaanu na danañ na mu arda baabil suufu baabil. fa lañ نينا فوف لا هاران مي باي لو генي ادنا نعم. وهذا لي نك هو مم الصحيح مويل وير المشهور مويل سيو عند اهل السير اسم ينسيرا والتواريخ ان تاريخ والاخبار ان ينتي خباري لا سيو دال موي هاران فوف تي بابيل فلا генي ادنا نعم وصحابه ويرل نزاري كل الحافظ ابن عساكر ابن عساكر يعني ان ولوبر نعم بعد ما روى جناب من التلي من طريق هشام بن عمار تيون هشام دوم عمار عن وليد وليد عن سعيد بن عبد العزيز جريت سعيد بن عبد العزيز عن مكهول مجريت مكهول ابن عباس مجريت ابن عباس قال منه ولد جرنا إبراهيم إبراهيم بغوطة دمشق في غوطة دمشق في قرية تدك يقال لها ني وقت برزته fi jabalin ci doj yu qaalu lahu qaasiyun doju qaasiyun ah dana Ibrahima moom la juddoo ci Dimashq mm-hmm. ci dëkk bu ñuy wax Barza mm-hmm. ci doj bu ñuy wax qaasiyun mm-hmm. su ma qaal ibnu Asakir ne loolu wérut de nettali bii nettali nañ ko waaye wérut wa saxiw lu wér andoon na moom Ibrahima wuli da jur nañ ko bi Baabil Baabil si suufu Kaldaani yéen foofu lañ ko jure way na ma nusiba nag askay na nañ ilay jëm ci moom aadal maqaamu bile barab muy xuuta dimishqa barab la foofu ci dimishqa dëkk bi mooy barza doj bu mu juddoo di xaas yoon lu tax ñu ne Ibrahima foofu la juddoo li àndoon ndax moom salla julli na fii si moom ijaa bu mu dikkee mooy na di dimbale li luut ñeen luut alayhi salaam daf doon demal doomam ju ndaw jooju di luut doomi bàyyi doomi magam ji doomi mbokkam ma di luut mm-hmm. dem julli foofu moo tax ñu askane ko barab boobu baabil la juddoo xaaloo wax nañ ne fa takk na ibrahima ibrahima saarata saarata ibrahima ba màggee takk soxna suñuy wax saaratu wa naaxuur naaxuur takk na mm. malka mm-hmm. ibnata haarun doomi haaraan mm. kon yaanu yaanu dañoo nangu bi mu ne te axii doomu mbokkam xaaraan am na doom ju jigéen mm-hmm. maanaam mbokki luut mm-hmm. moom la naaxur takk mm-hmm. mbokki yonent yàlla luut xaalo ñu ne wa kaana nekk na saarata saaratu aaqilan di jërmel laa talidu mënul am doom saaratu nag comme ni ko ñëpp xamee si siire yi saara dafa jërmeloon mënul am doom قالوا ني وانطلق مدم طارق طارق بابني سي دوم ابراهيم ابراهيم وامراته اك سخنام سارته سارته وابن ابني اك دومي دومم مويام ستم موي نوت بن هاران دومي هاران وانا خاوي نك طارق امنا ابراهيم ام اي يينيني دوم dafa ànd ak doomam ji ñuy wax Ibrahima ak soxnaam Saratu ba Ibrahima màggee ba takk soxna dafa ànd ak baayam ak sëtam ba muy luut boo xoolee moom wali yàlla yonent yàlla yi la ànd mhm. mu génn biir si ñoom mi mhm. kanaan yi ne dem ci suufi kanaan mhm. baayam ci la tuxu jugee baabil googu dem kanaan ba muy dem dafa ànd ak Ibrahima ak soxnaam ak luut fa nazalu ñu wàcc xarraan ñu daal di wàcc barab bu ñu wax xarraan fa maata mu dee fiyaa ci xarraan taarix kon balaa muy génn àdduna fekk na Ibrahima takk na soxna mu ànd moom tuxu jógee Baabil dem Kanaan wàcc ci barab bu ñu wax xarraan foofu la taarix bàyyi Ibrahima génne àdduna wala wuta ñeel na ko mi attaani ñaar téeméer wa xam suuna sanatan ak juróom fukki at ñaar téeméer at ak juróom fukk la dund wa hada nettali bi yadulu dafay wane ala annahu ne ibrahima lam yulad juruñ ko bi xaraan parce que ba muy dem xaraan bu fekk na sa am na soxna way na ma mawlidu na ko judduwaay mooy bi ardil kana kaldaan yi ne si suufu kaldaan yi ne waye moom ardu babil mooy suufu babil wama wala ak li méngoog babil foofu la ibrahima juddoo ثم ارتحلوا توب ني لخص قاصدين دي وي جبلو اردل كنعان يوسف كنعان غناو غين جوغي بابل دم كنعان نعم كنه كو كنعان موي فان موي وي موم بلاد بيت المقدس موي ريوي بيت المقدس فقاموا نسخ بحران تي حران وي موم حران عبد الكشدان ني موي سوف وكشدان في ذلك الزمان سبوب الجمهور نعم وكذلك نكون من نكون تودي أرض الجزيرة والشام suufi jazira ak Sham. waaw ay den ba tey. Mhm. maanaam dafa jógee foofu dem Sham daal moom bàyyam fa la dëkk. ci côté mhm. Baytul Maqdis. wa kaanoo nekkoon nañu waa dëkk foofu yaa mhm. am bu duna di jàmm. alkawaakib as-sab'a ñaari biddiw yi. ñaari biddiw. yu ñuy wax alkawaakib as waa dëkk boobu. moom lañ doon jaamu. ba fa Ibrahima di dem. والذين نيغا خامنا عمرو دندل مدينه دمشق نيوم نيو فخي با دمشق نيك دك بو ماك فك فيري مان نيو دندل دك جوري ني واخوما لا كانوا نيكون راد الدين تي بلا دي جامو جوروم نياري بيديو يو يستقبلون لي جبل القطب الشمالي بين لا تي بيديو ويعبدون ني جامو الكواكب السبع جوروم نياري بيديو بانواع تي من الفعال تي جف والمقاله غي واخ دي واخ سي دي di def lu bëri pour jaamu xel jublu ci jaamu biddiw yooyu wala haada li moo tax kaana nekkoon na bu njëkk ala kulli ci bépp bunt min abwaabi dimishqa ci bunti dimishqa asama yi juróom-ñaar alqadima yu njëkkoon haykalun benn euh, dégg melokaan li kaw ka bir ñeel ab biddiw minaa ci juróom-ñaari biddiw yooyu am na juróom-ñaari bunt jamono boobu bunt bu nekk rek ñu def fa benn benn jëmm mooy benn xërëm muy nataal ab biddiw pour ñu wane ne ñoom yii la ñu gëm lañuy def hmm. laxaa ñeel biddu yooyu en yaadan ay feet wa xaraabiin ak way jaamu yàlla hmm. waxaakasa nag nii kaana la nekkoon ahlu xarraan waa xarraan mooy fa ibrahima mujj wàcc moom ak baayam ak lóot hmm. yaabuduuna dañ doon jaamu ñooñu waa dëkk boobu alkawaakib biddiw ya wala asnaam ak xërëm ya wa kullu man kaana képp ku nekk alaa waji addi ci kaw suuf si kaanu nekkoon nañ ko faaran di hmm. si waa ibrahima lu mooy ibrahima alxalil mi nga xam ne mooy xaritu yàlla hmm. wamraati ak soxnaam saaratu wam na axi ak doomi mbokkam luut hmm. ñett ñi la ñoo nekkoon jullit ci kaw suuf fu ñu ko jëlee yàlla leen ko wal islam yàlla ko yéen ko wal ibrahima ibrahima woo leen ñoom ñu gëm ko alayhi wa nekk ñoom assalaamu jàmm kon jamono tolloon na foo xam ne waxuma la ab dëkk de suuf si yëpp xéeféer lañu woon wa kaana nekkul al xalil xalil ibrahima xarit ci yàlla ali yàlla nekk sama asalaamu jàmm hmm. huwa allazi mooy ki nga xam ne azala dindi na allah yàlla bii ci moom tilka shuroro yooyu la ay hmm. wa abtala yàq na bii ci moom zaaka dalaal boobu réeréer hmm. hay woowu muy xéeféer gu tasaaro googu ci ibrahima alayhi salaam la ko yàlla génne wa inna laa naka yàlla subhaanahu tudd na ma sellam wa taala kawe na ataaw jox na ko rusdahu njubam mhm. muy xam yàlla mbaaxam am xam-xamam jubam fi séxari ba mu nekk ndaw mhm. ibrahima ba muy ndaw ral la jub moom wabtaasawu yàlla yónni na ko rasulan muy yónantu mhm. wattaxasawu yàlla jàpp ko xalilan muy xarit fii kibar ba mu magee ba mu ba nekk mag yàlla def ko xaritam def ko yónantu buntab xarit nag yàlla ubbil na ko ñëpp ku góorgóorlu rek di xaritu yàlla qaala waana taala yàlla mu ko mi ولقد آتينا جهنا إبراهيم إبراهيم رشده جبم من قبل ذكر يونس على محمد صلى الله عليه وسلم ولبوك من قبل ذكر موسى هارون بورنا وكنا نكون عالمين دي ويقم به جمع maanaam ay kaana nekkoon ahlan bi yelloo li zalika ñeen jub googu yàlla du lu ne lay jël jox ko ku ko neex maanaam maanaam jox ko benn waay rek dëgg la mooy tànn ku ko neex waaye balaa mu lay jox dara dafay fekk nga méritoo may googu moo tax mu ne ah xam nañ Ibrahima mi ñu jox njub góog de maanaam xam nañ ne yelloo na njub góog moo tax ñu jox ko wa qaala wana taala yàlla mu ko mi wa Ibrahima Ibrahim wa jàngatal Ibrahima Ibrahima qaala ba mu waxee di xaw mi ñeel nitam fekk ñoom ñëpp ay hévér lañ ne ubudu jaamu leen allah yàlla wattaquhu ragal leen ko jaamu leen yàlla hmm. waaye na ngeen ko ragal hmm. jaamu yàlla dafa war a ànd ragal yàlla hmm. jaamu yàlla nag hmm. mooy yëngatu yi hmm. yi ngay def wala bàyyi yi ngay def yooyu jaamu yàlla la boo àndeeg nag nga jublu ci def ko ngir màggal yàlla ak fooral ko ak yëkkati ko wane na yow jaam nga bu torox bu lottu sa kanam borom mënoo dara xamoo dara xamoo dara su boobaa ma jaamu yàlla ga ànd naag ragal yàlla de julli lu muy baax baax ay yëngatu rek la taxaw rukon sujoo toog mm. Mm. yooyu ay yëngatu la mm. yëngatu rek nag kenn mënu ci am tiyaaba xam nga ne yëngatu rek jarut nit di ko bàyyi bàyyi ñi di ko rey yëngatu xam nga ne gënul aj waaw ak i xoor julli buñ demee moom gën loolu lépp torox lu gi nekk ci biir rek laa wax de moo ko waral taxaw ngir dégg nga wàccee sa bopp rukon su jóot sa jëf yi nga gën a fonk nga teg ko ci suuf wane na jaam xeebu nga màggal yàlla yëkkati ko di diyaaleeg moom teewlu nag baati yi da ngay jàng dégg ak maanaam ba rek laa wax de teewlu ne yow jaam lottu nga bu taxaw ci kanam moom fi mu nekk nii di ko bàkk di ko màggal di ko jaamu di war a nekku torox la de sa xel mi yëpp nekk ci julli gi kooku daal mooy tax ñu ne julli baax na looloo waral mu màgg looloo waral mu foor waaye julli goo xam ne leneen ngay xalaat ba julli gi jeex loolu taxul ñuy wax julli loolu ak yëngatu rek moo dem di tëb rek benn lañ dégg nga doomu aadama nag na fexe bay teewlu jaamu yàllaam su ko bëggee nag na fexe bëgg mi yàllaam sax ci moom doomu aadama bu nekk la ko yitteel rek lay xalaat bu dee coono àddina yi daf laa mm-hmm. boo julli loolu rek ngay xalaat bu dee dafa am bànneex àddina yu la yitteel mm-hmm. yooyu rek ngay xalaat mm-hmm. waaye bu la sa borom yitteelee boo demee ba taxaw ci kanamam moom rek ngay xalaat de man ñi baax ñi daal daan nañ julli waaw terrasse ba ñuy nekk di màbbu sax te yeguñ ko ndax teewlu gi ñu teewlu yàlla ak xalaat gi koy xalaat hmm. kon nag jaamu leen yàlla ragal leen ko lii la Ibrahima wax hmm. mu ne zaalikum loolee hmm. xayrun moo gën la lakum ñeen leen waaye nag in kuntum ne nekk ngeen taalamoon di xam de su fekkee xam ngeen jaamu yàlla ragal ko moo gën lépp lu ngeen nekk bu ngeen xamul nag moom kenn xamul si dara nit ku xamul moom mën naa jàpp xay sax yaakaar ne xéwal la gis lu koy lool yaakaar ne da koy jëriñ waaye daal Ibrahima mi ñu gën a xam wax na ne yàlla ragal ko moo gën ñaal ñu ne xiw la ñaal ñu duñ ci jëlee benn musiba mm-hmm. xiw rek lañ ciy jëlee mm-hmm. yàlla ñu ko yàlla wërsëgal innama taabudoona mm-hmm. naka la ngeen di jaamu min duuni laahi ci dul yàlla aw saanan ay xiram rek la wa ko yéen a ngi fenti yéen ngi sos ifkan ak nar wi gën a bon naan yàlla la waaye lii du yàlla ay bant yi xiram rek la la ngeen ci wax ak yëpp du dëgg ay sos la de yoo xam ne yéen a ko créé inna lazina naka la nga xam ne hmm. taabuduna da ngeen ko jaamu min duuni laay ci dul yàlla hmm. laa yam li kono duñ moom lakum ñooy leen hmm. risqan benn wërsëg lépp looy jaamu te yàlla taxut yaakaar ne man na laa may intérêt àdduna mu ne mukk la àdduna li ngeen di mu ni moom leen a may benn wërsëg yàlla mi leen wërsëgal nag hmm. gannaaw mu leen bindee hmm. ku ko fa bàyyi di jaamu koo xam ne nii bindut la hmm. wërsëgalu la yaa ngi tooñ kon foofu taxu sàkku leen ind laaye fa yàlla risqa wërsëg bu ngeen bëggee wërsëg wut leen ko ci yàlla moom rek moo ko mën a maye waaye nit ñi wuñ ko nit moom lu mën a xew mm-hmm. mënuñ laa yokku daraay wërsëg mm-hmm. xamal ki gën a foor ci àdduna mm-hmm. du la yokku dara wërsëg de yalla man na la koo xam la ba pare nga dee ba dund ba dee ci ñàkk ndax yàlla dogalul ci yow wërsëg mën ngaa dund bëggee na àdduna xamoo benn kilifa xamoo benn borom alal mhm. yàlla may na alal ju dul jeex kon wërsëg ci loxo yàlla la nekk mhm. waaye nekku ci xamanteeg nit ñi nekkul ci pexe yi mhm. waaw nekku ci góorgóorlu yi di leen war ngeen a góorgóorlu waa ngir jaamu yàlla kon waa bu du jaamu leen yàlla nag yàlla mi leen may wërsëg jaamu leen ko washkuru gërëm leen loo ñeen ko wut ngeen wërsëg may na leen ko jaamu leen ko te leen gërëm ko bu leen bew tur jamono dañ leen delloo yéen ñëpp nag ilay jëm ci moom mm-hmm. kon li ngeen am ci adduna mm-hmm. waa bu leen fuydoo da leen wóor na yéen ñëpp rek mm-hmm. bis dana ñëw ci yàlla yàllaay mujj ga comme que mooy bu leen ko fàtte wayntu kasi boo nam weddi ngeen faqad kasaba weddina njëkk leen ah, bu ngeen weddee yonent nag mbew di jaamu leneen njëkkee wu leen ko fi de am na ñu ko fi defoon waaw yéen aw ngeen yoonu ñooñu rek de la mm. leen daloon mm. wa ma ala rasuli déet di ñeel yonantu mm. déet di war yonantu ilal balaaxu lu mooy jottali almubin baa ji leeral man daal jottali moo ma war yonantu jottali moo ko war man daal jottali naa leen jeex na awalam yaraw xanaa gisuñu keef yub diw naka lay commencé àllaa yàlla alxalq bind suma topp gannaaw bu mu bindee bam bu dee yooyu doo dana ko dekkil xanaa gisu leen yàlla di commencé bind Mm. ab toqam mën nañu budul dara. Mm. mu jël ko def ko lu mu deret. Mm. waaw def ko ay e, suuf. wutale ko yàq. waaw sàngee ko yàpp. mu wutale ko bët nopp. waaw tànk loxo. génne ko mu di liir bu tooy xepp. waaw mu di ko may kàttan ak xel. ak doole bis bu nekk mu xamal ko lu mu xamul woon. ba mu mujj nekk kilifa. waaw gannaaw gu mu rey ko. gannaaw gannaaw gi noonu la koy dekkilee rek laa wax de. kanaa ki sos kay. toqam mën nañu naa dekkilaat. ni yàlla commencé rek noonu la lay dekkalee hmm. inna zalika ne ko loolu hmm. yasiirun aji yomb la alallahi ci yàlla hmm. dekkil kay yomb na yàlla ndax xas moo gën a jafe kul waxal siiru dox leen fi laa de si suuf si fan duroo xool leen kay fa ba daanaka la commencé alxalqa mbind de boo yàggee dox rek hmm. danga dem fekk koo xam ne nii hmm. mosoo koo xam hmm. nga dem si dëkk ba fekkaat ko fa ñu ne sa gannaaw la judd gis nga ni ko yàlla sosee ba fekk koo xamoon yàlla rey na ko fa indiwaat ñeneen ñu bees kon bu ngeen yàggee dox rek da ngeen gis nu yàlla di fi jëree ñenn ñi di kereewaat ñeneen summa summa topp gannaaw loolu nag allah yàlla yun siw dana sos anas atal axira sos gu mujj ga te mooy dekkil leen gannaaw buñ dee loolu yàlla dana ko defaat de inna laa naka yàlla hmm. xadirun ajaatan la mala kulli seen ci lépp lu nekk waaw bokk na ci li man waaw bind ak dekkil yuasibu dana mu mbugal man insha ku ko neex hmm. yàlla bu mu ñu mbugal yàlla yàlla musal ci mbugalam hmm. wa yarhamu dana yërëm nag man insha ku ko neex yàlla nañ ci bokk wa tuq la borom dana leen jàllar bi ilay jëm ci yàlla maanaam yàlla lañ leen delloore waaw wama antum déet yéen bi moon si na ngeen way raw filaa di suuf walaa fi samaay du caageen ci asamaan de du ngeen rëcc mukk moo xam ci suuf ngeen nekk bu ngeen mënoon dem ba nekk ci asamaan yi du tax ngeen rëcc waa xam na ñuy jéem a dëkk asamaan nag waaye buñ fa dëkkoon duñ rëcc yàlla de mbugalam yàlla dana leen fekk foofu dee dana leen fekk foofu wama di leen ñeel min duni laay ci lu yàlla min waliim ci benn aji dimbale waa waa benn kilifa wala nasiirum du caageen aji dimbale amu leen ku leen taxaw ku leen dimbale bu leen yàlla naree mbugal leen hmm. wala di ñi nga xam ne kafaroo wet dinañ bi ayaati laay ci kawteef yàlla mu di alquran hmm. wala xaay yi ñu weddi dajeeg yàlla hmm. waaw gannaaw bu leen yàlla bind wulaay ko ñooñu ne gars yi soo naago nañ min rahmati sama aljana de ñooñu kay duñ dugg aljana wulaay ko ñooñu ne gars yi lawum ñeel na leen adaabun mbugal baaji méttital rek laa wax de fa maa kaana nekkut lii Ibrahima wax waaye lu ko gaayam bi tontu mu ne fa xariqoo wala lakk leen ko mm. doomu aadama yaa ngoogu waaw ñu bëri ci ñoom mm. waaw nit ñu bon lañ mm. boo leen digalee lu baax rek waa ñu song la xare waaw ak xeex waa rey leen ko lakk leen ko loolu moo di seen i xool tontu boobu woon boobu rek de ak wax ji dafa jëm leen wax fan jaaw musal nu ko laaw yàlla minen hmm. naari safara hmm. bañ taalee safara sa sànni ko sa hmm. yàlla ne safara seddal waaw sedd ak jàmm ci Ibrahima de waaw safara sa neex lool ba fan yi du Ibrahima dund ci àddina yëpp fan yi nekk safara sa moo ci gën a neex ne fii zaalika nag nekk na ci musal googu laa yaatin ay kawteef li xaw mi ñeel nit ñi ñu ñu way gëm ñi gëm yàlla xool lañ ci Ibrahima rek safara nun méttee ñëpp mm. dagg nañ ko mm. sànni ko ci mu musal ko mm. yéen it bu ngeen gëmee yàlla pexe muñ leen tërale rek yàlla musal leen ci yàlla yàlla musal wa xaala wax ne dama taxastum naka jàpp ngeen min dunillahi ci dul yàlla aw saanan mu ri xëram ma wala tan ngeen di soppante baynakum seen diggante ci jaamu ko fil hayaati dunya ci dundu àdduna waaw yéen a ngi nii nag yéen ñëpp xaritoo ci jaamu ay xëram képp ku leen haay xëram ngeen noonoo ko ñii jaamu xëram yëpp waaw nekk benn bëggante soppante dugg na ci képp bépp mbooloo moo xam ne lañ nekk du dëgg ñu bëggante ci soppante ci di ci dimbalante nekk ca waaw ñooñu yàlla ne eh, ñooñu dugg nañ ci laaj ji de waaye su ma yomal xiyaamati topp bis pénc yegg furu dana weddi bandukum ñenn ñi bi bandin ci ñenn ñi de yéen ñi àndoon ci caaxaan yomal xiyaamati da ngeen weddi wante jiw ak bon cëm li nekk ci musiba yëpp moom ma ci dugal tos kare ñeel na ko kii kay su ma ko mënoon rey sax danaa ko rey waaw yë yellanti koon du ma ko xam yellanti koon du ma ànd ak moom loolu rek ngeen wax de kon bu ànd ak ne moom ci dëgg caaxaan du dara yowmal xiyaamat da nga koy rëccu dal di ko weddi xas koon waaw wayel anu dana rëbb baadukum ñeneen ñi baadal ñeneen ñi waaw noonu ngeen di mujjee de di noonu wante di rëbbante ku nekk bëggoon a jekku sa morom rek ba def ko musiba bu rëy ngir musiba la teg wa maa waakum seen sax waa yéen ànd ak seen i rëbbante annaaru sawara wa maa lakum di leen ñeel min naasiriin ci way tere mbugalam yàlla de amul ko yenn musal ci mbugalam yàlla faa mën a gëm na loo ñeel ko luutun luut wa qaala wax ne innii naka man muhaajirun aji gàddaay ilaa rabbi jëm sama borom luut daal di gëm yonentu yàlla ibrahima moom yàlla def ko yonentu ibrahima ne waaw maa ngi gàddaay jëm sama borom innahu naka woo moom al aziz maa ji not alaakim waa ji xarañ waab naa may loo ñeel ko Isaaq Isaaq wa Yaquba Yaquba ñu di doomam mu jaal naa def nañ fii njabootam annubuwata yonantu wal kitaab ak téere mooy tawraat ak linjiil mboolem yi rek waaw ci njaboot njabootu Ibrahima la wàcc ndax moom mooy bàyyi yonent yëpp gannaaw ga waatee naaw jox nañ ko ajro tiyaabaam fi dunya ci àdduna way noonu nag moom Ibrahima lamina saalihiina mu ngi bokk ci way baax ña fil aaxirati ci àllaaxira rek laa wax de laa jël an kabur la nekk in uriidu al-islaam mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh